waaw suñu teewaay tey fii mooy tey dëggal suñu bopp rek you know pour wan pour bëgg ni élection yi dañ ko war a jàpp ci nu mu gën a gaawee soxlawuñu dialogue soxlawuñu waxtaan organiser suñuy élection nga dem bañ lay fal dialogue wuñu loolu daal moo ñu fi ni tey quand il faut perdre il ma perdre loolu rek mooy wax ji te ni ñuy xippi suñuy bët di xool ndax bukki li mu guddi guddi day for yàpp wax ji wax ji laal daal loolu il faut être vigilant te di déglu ah ah na ñëpp jëli seen i carte ndax fi mu ne nii bu jeexee jeex na Amérique wax na opinion internationale bi wax nañu bu jeexe jeex na mais nañ ci tijji suñuy bët di xool rek aa ah, ah. lan moo gën lan moo gën a yomb autoriser marche auto léegi pare wuñu kan moo fi sànni lacrymogène ban policier lañ fi gaañ ban sénégalais lañ fi gaañ léegi autoriser marche gënul yomb ah, gënul gënul yomb di di di ko tere lan moo gën a yomb jeex na da ngeen gis dara luñ fi taal euh, donc nag Euh, marche suñu suñu droit la te dañ koy jël.